si làmb bu weesoo si combat euh, sama combat ak Tafa Gueye moom dafa ma neex trop parce que sama idole la dafa daan bëree ma jóge fii dem géej ba teer dagg bee dem supporté ji ko am na benn anecdote boo xamoon naa ko sax mu koy dégg dama doon def su su combat ba pare dama doon xool fi mu doon toj ndaa yi waaw ma daw di jël si toj yi di di ko waaw di ko def sam poos su ma ñëwee di ko sangoo naa dama bëgg mel comme moom waaw kooku yàlla def ñu dem ba bëre. waaw ma daan ko si bëre loolu vraiment lu ma neex la trop si sport beneen bi mooy li ma si neexit mooy bi ma si dugg euh, dama jëloon risque mooy boobu làmb demeewul noonu mbuur ñu ne ma soit bu bu képp ku sa doom di waxati waxi làmb dañ naan la bàyyi ma yàlla def na suturaal na ma euh, def naa si carrière bu gudd tey it rëccu mu woon lan laa doon duggee si làmb waaw loolu moom neex na waaw def naa waaw 95 laa njëkk a bëri Mbour ak Thiaw Thiengo mais 97 laa njëkk a bëri Dakar waaw 97 ba léegi yàlla mooy dimbali maa ngi si làmb ji ma nekk ko 2002 waaw nekkaat ko 2014 waaw di xaar troisième bi incha allah <laughs> <laughs> loo xam waaw li ma gën a naqar nag sama combat ak Baboy la waaw waaw parce que boobu <laughs> joxuma ko cër bi mu war a am joxuma ko it gëdd ba waaw vraiment dama ko doon menacé di def lu nekk xeeboon ko yàlla def mu daan ma pare tamit différence de poids bi amoon ak taille bi daf si joué waaw waaw dama ko xeeboon dëgg-dëgg waaw mais Baboy aussi maa ngi koy nuyu de passage moom it waaw <laughs> waxoon naa ko ne ale boo gis am na retour non Thiès Thiès waaw ah, ah, Thiès la waaw. ma yóbbu ko France waaw ma naq ma yóbbu ko France. pourtant li ma leen sànq ni ci affaire sarmu làmb bi ma bi ma bëggee bëriwaat ak moom dama toog fii Mbour ñu ne mu ngi caajaay waaw benn finalu nawetaan maître yu invité ko mu ànd ak Mbaye Diouf ñu wax ma ne ma baabooy day ñëw may leen damay dem ma dem summi siletment bi fekk ko fa nekkoo ko doo am jàmm ñu presque ñu xaw fa xeex fa la combat bi taxawee ban lan loo xam ni boo ko xalaatee da def ay ree sa carrière bi boo ko xalaatee ñu def lu yéeme wala mu yéem la bokk te déggoon naa ci benn mbër mu ne. Mhm. Tyson bi ngeen bëree. Mhm. mooy làmb ji bu fekkee dafa am ay jinne man damay <laughs> <laughs> man daf may def ay <laughs> man loolu ay dégg laa ci rek maanaam làmb ji dafa am ay jinne affaire yooyu waaw non non non làmb ji amul jine làmb moom ay ay nit normal ñoo si bëri quoi. ko jaaxal <laughs> ne boo ko yow da mu yéem la daf may yéem. wala mu def la ay ah man de xanaa sama benn booy euh, Lamine. mu ngi France sama gorol léegi. Hmm. Euh, en tout cas bi may bëreeg Tyson deuxième compa bi. bi pression bi demee ba xam nga stade dafa niisoon waaw ñëw na ba si man ne ma daal actuellement tiit naa tiit goo xam ni bu ma sañoon dara day am si stade bi wala mu ju doon waaw bu bu mooy bu sañoon affaire bi day màbb wala dara affaire bi yàqu ba nga xam ne combat bi parce que dafa dafa dafa tiitoon waaw waaw. Euh, xam nga jàmbaar moom bu fekkee ni jàpp nañ ko peut-être ñi mu àndal ñoo koy seetlu xam nga seetlu bi mooy. xam nga ñun dañoo bari lu ñuy seetlu waaw tey bu fekkee am nga combat bi def lii ñu gis beneen combat defoo ko rek dañ naan jekku nañ ko mais yow même mi nga xam ne yaay combattant bi man nga ko sax bañ a xam non yàlla xam na ni yàlla xam ne duma ko sóoraale sax man bu ma ñëwee du ma sóor sax ni ay jàpp nañ ma ay mystique ay nangam-nangam non man loolu doxew ma noonu.